ko defee te dara génn nag ñu teqale la génn bu dee mànni yu day war a fay ba noppi ñu alamaan ko boole ci la génn nag bu dee mat yu fay rek lay def waaye alamaan du ca war lu bokkut ak nag fay ga ca ba ko fay rek waree ak boole fay ak alamaan ci ba ko fay ak alamaan waree da cee am nag bàkkaar boole ca kon nag na jéggalu bu baax te moytu ko defati wala may gis dëgganut li zaati zawjin ñeel boroom jëkkër xajjun aj naflan mbir mu muy naafila wa sawmun ak koor wa itikaafun akuk lixtikaaf aslan ci cosaan ilaa bi idnin ndara ci ndigalum jëkkëram jigéen nag bu xasee am boroom kër du sañ a jekki-jekki aji aj goo xam ne du ajug farata ajug naafila rekk la du sañ a jekki-jekki itam koor koor goo xam ne koorug naafila dong la lu may da cee am ndigalum jëkkëram ndax bu xasee armal aj wala mu xas tàmbalee koor jëkkëram du saña joteeg moom loolaay tax nag kon balaa dugg ci lu mel noonu ndegam lu muy coobarew rek la di bëgg tuyaaba na ca sàkku ndigal ba jëkkër ja may ko ci ndigal bu doon ci jamono yi jaam amee itam jaam bu jigéen du saña jekki-jekki aji du saña jekki-jekki itam koor koor coobarewu lu may ab sangam da ko caamay ndigal ndax ndegam sang ba sañ naa joteeg moom balaa dugg ci luy teem mën a joteeg moom war na caa sàkku ndigalam njëkk wala hoo ñeel na jëkkër ja añ yóbbati la hoo mu yàq ko xalal lati ca jigéen ja nga xam ne yaxtaajuha dana ko aajowoo fal tas ala kon na ko laaj ndigal la bala mu caa dugg bu jigéen jekkee jekki koor kooru coobarewu rekk wala mu jekki-jekki aji armal aj daal maanaam ajug naafila dong te amu ca ndigalul jëkkëram bu neexee jëkkëram bu bëggee joteeg moom mu daldi joteeg moom bu dee koor ga koor ga yàqu bu dee aj ga aj ga yàqu te moom jigéen ja moo tooñ boppam waaye nag jëkkër jëkkër la muy sañ a yàqee koorug soxnaam si wala ajam googee mooy joteeg moom nde sañu ko forcé ci koor ga tey nga lekk mbaa tey nga naan mbaa mu ne ko da nga def nangam lu yàqu koor fekk loola du jote ak moom jote ak moom dong daal la sañ a yàqe kooram googee mbaa loolee mu armal ci aj bu doon jamono yi jaam amee nag sang ba moom bu jaam bu jigéen bu jekkee jekki woor mbaa mu aj mën naa yàq loola ci kaw liggéeyloo ko liggéey boo xam ne du ko mën a booleeg koor ga lu bokkut ak joteeg moom lam defoon yàqu mën naa yàqe lam yéene woon ci kaw liggéeyloo ko liggéey bu mu sañ ta bañ du ko mën a booleeg la mu jekki woon jekki yéene moo tax kon jigéen ju am boroom kër daal balaa dugg ci koor mbaa aj ndegam lu mu coobarew rekk la na ci sàkku ndigal ca boroom këram ba may ko ci ndigal waaye bu mu jékki-jékki dugg ci lenn ci yooyu yaar te amu ci ndigalul boroom këram bu doon nag koorug farata wala muy ajug farata moom jëkkëram suñu ko ca aaye lenn farata la ju yàlla gàll ci aw loosam jëkkëram suñu ko ko aaye bu ko jëkkëram forcé woon sax joteeg moom ci weeru koor jëkkër ja mooy gàddu bàkkaar ba ba noppi itam war koo fayal alamaan ba jigéen ja fay rekk lay def su fekkee jigéen ja da caa jubóog moom nag ñu woor ba noppi ci ramadaan teewul ñu jote ñoom ñëpp ñooy bokk am bàkkaar te kenn ku ne war a fay sa alamaanu bopp baabul i'tikaaf li muy buntub i'tikaaf i'tikaaf sax wala taqoo lay firi taqoog dara rek mooy i'tikaaf ci li baat bi firi ci làngu arab wi bu dee ci ni ko lislaam tërali nag mooy taqoog jàkk ja te muy jàkk joo xam ne waaxu sàkk la jàkk joo xam ne ku dem rek sañ a waaxu jaamu ci yàlla jullit bi taqoog jàkk ja di woor bëccëg bi saxoo xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne day laabal xol niki jàngal quraan ak julleeg tudd yàlla loolu mooy lixtikaaf moom nag lu màgg màgg la lu ñu soppa sopp la ndax jaam bi da cay tàggatu ba xaw a nuru malaaka yi ci sori lépp luy xeetu bànneex yitteem jëpp jëm ci boroomam dañ koy gën a taamu nag ci weeru ramadaan ba tey fukkee ci mujj ci lañ koy gën a taamoo ndax laylatul xadri dañ koy gën a séentu ci fukki fan yooyu nga xam ne moo mujj ci weeru ramadaan wal ixtikaafu lixtikaaf xukmuhu àtteem ba fadilatun ngëneel la aqalluhu gën jaa néewam yowmun moo di ab bëccëg wa baadu laylatin ak lenni guddi lixtikaaf ngëneel la maanaam jaamu yàlla la bu ñu sopp rek waaye warut lu may nag kookaa ko warlu su ko warloo rek nisur ko mu door a war waaye bu ko warluwut moom dañuy sopp rek mu sawar def ko lu mu néew néew nag mat bëccëg ak lenn guddi li tax ñu mënta ñàkk mu mat benn bëccëg ak lenn guddi mooy bu dee ci yoonu waa Malik liitika faaw day ànd ak koor te koor ga ci guddi ga lañ koy yéenee moo tax guddi mënu caa ñàkk lu mu néew néew itam mat benn bëccëg ndax koor moom gën gaa néewam ab bëccëg lay doon tàmbalee ci fenkuk fajar ba fa jant ba soye lañ ci gën a taamu nag mooy lu mu néew néew mat fukki fan ba tey nag lu mu sawar sawar mën naa yem rekk ci weer ëppale ko weer moom ba tey taamuwuñ ko guddi gi nga xam ne ci lay yéene koor ga ca lixtikaaf ja dañoo bëgg balaa jant baa so rek mu dugg ca jàkka ja la buñ ne suba la ajjuma suba nga bëgg a tàmbali lixtikaaf bi tey ci alxames ji balaa jant bee so lañ bëgg nga dugg jàkka ci kaw soppande boo demee jàkka ji njëkk fenku fajar rek mooy njëkk waxtu yéene koor ga di wéy rek dal nay baax shurutuhu sartam ya at tamyiisu moo di ak xàmmee wal islaamu ak lislaam wal masjidu ak jàkka ja al mubaaxu jadi juñ daganal mooy jadi juñ yaatal ba ku waaxu sàkk amul xatal wa siyaamu ak koor liitikaaf nag ka koy def mën naa doon gone waaye nag na àgg ci xàmmee ba amee xelum jaamu yàlla gone moom bu àggee ci am xelum jaamu yàlla rek mën naa lixtikaaf su boobaa nag faaw day woor ndax lixtikaaf moom bu dee ci yoonu Malik mënta ñàkk ànd ak koor ku amut ak sagoom nag mel ni ab dof wala gone goo xam ne agagul ci amee xelum jaamu yàlla moom kenn du ca mën a lixtikaaf ba tey it kay lixtikaaf faaw mu dugg ci lislaam ndax xeetu jaamu yàlla la goo xam ne bu duggul ci lislaam bu ko defee itam du wér dañuy sart itam ñu def ko ci jàkka mënoo ko def ci sa néeg rek wala sa bitik wala fooy defee xalwa rek faawu ci jàkka lañ koy defee tey day doon jàkka yi waaxu sàkk maanaam ku dikk rek sañ a dugg jaamu yàlla jàkka ji ko def ca biir këram di ko tëj nga xam ne li fekk tëjjiwu ko dugg keneen du ñëw duñ ko xañ def ci jooju jàkka wasiyaamu jëm daaneele koor ga moom mënu caa ñàkk bu dee yoonu Malik faw ki lixtikaaf day woor bëccëg ba wa suxluhu soxlaam nag salaatuhu mooy julleem nga wa zikruhu ak tudd yàllaam nga xiraatun ak jàng alquran wa xayru haasa lu dul lii nag yukrahu def na ko sib ka darsihi ni ak jàngam li xilmi ñeel xam-xam aw kitaabatihi wala ak bindam dañoo taamu nag bu nekkee ca liitikaaf bi mu sax ci xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo gën a mën a laabal xol muy julli ak jàng alquran ak tudd yàlla yeneen xeeti jaamu yàlla yi ci des nag mel ne yóbbaale fa téere yi xam-xam di ko gëstu mbaa di fa bind téere yi xam-xam yi di ko sotti mbaa sax di fa bind ab kaamil yooyu yëpp ak jaamu yàlla la waaye taamuwuñ ko ndax yee ñu weesu muy julli ak jàngal quran ak sikkar daa gën a mën a setal xol moo tax aw i'tikaafihi wala ak lihtikaafam bila kifaayatihi ci lul ak doyloom sib nañu mu dem di lihtikaaf te fekkul mu am lu ko doy loo xam ne la yittee muy lu muy lekk mbaa lu muy naan mbaa lu muy sol yépp da koy fàggandiku ba noppi waaye dugg ci lihtikaaf te fekkul mu fàggandiku yooyu sib nañ ko su fekkee ne nag yor na njëgg ba nga xamee ne lu mu ci aajowoo daal di mën a génn yam fa gën a jege toppatoo ko ñëwaat loola sib rek lay doon waaye su fekkee yoru sax njëgg nga xam ne bu àggee ci loru ci kenn ci yooyu day génn di ko yalwaani mbaa mu di ko lewi buy génn rek lam defoon daal di yàqu wa batiluhu na nga ko yàq bil xuruuj ca génn ga cosaan la wa ab batiluhu la woon way wee tax mëneesu ta jàng loolu bokk na ci yàq lixtikaaf nag mu génn génn koo xam ne sañu ko woon génn ga mu sañ mooy faj lor ju mënta ñàkk ci nit ni ki dem ca wanawa wala war a sangu janaaba dem sangu janaaba génn gu mel noonu moom sañ na ko waaye génn gu bokk te googu doonte sax daa war ci moom ci yoon mënta ñàkk it suy génn rek la mu defoon yàqu mel ne su dee liitikaafe ci jàkka joo xam ne deesu ca julli jumaa te moom jumaa war na ko te fekk mu ni sër nag ay fan yoo xam ne bisu ajuma ca la bokk faaw bu àggee ci bisu ajuma ja war a génn ci jàkka jooja dem julli ji jumaa ndax lim doon def ak naafila la muy liitikaaf bi te julli jumaa gi ndegam war na ko farata la ci moom bu génnee ne day julli ji jumaa nag lam defoon yàqu daa mel ne nag buñ ne la mu liitikaaf woon yàqu mooy fan yam nisaroon da koy tàmbaliwaat mel defu ko woon rek ndi sax jaamu yàlla ga moom yàlla mën na koo nangu fay ko ca tuyaaba wala mooy liitikaaf ba ci biir yëg ne kenn ci ñaari waajuram daa tawat génn seeti ko farata la faw war naa génn seeti ko te buy génn nag lam defoon yàqu mu war koo tàmbaliwaat wala mu dégg ne kenn ci ñaari waajuram faatu na te kenn ka des di dund war naa sàmmoonteeg jaali ka des di dund de bu fekkoon ne ka faatu ci ñaari waajuram moo ci mujjoon ndax kenn ka faatu woon na ba noppi du jar muy génn waaye ne comme kenn faatu te ka ca des ma ngay dund moom war naa génn ngir sàmmoonteeg àqi kay dund yépp na du tee lixtikaaf ba yàqu aw bil fitri wala ci dog te tey ko suy lixtikaaf dañ ne woon mënta ñàkk ànd ak koor bu dogee koor ga te tey ko lixtikaaf ba du yàqu day fay rekk bis boobee waaye bu dogee koor ga te tey ko moom moo xam lekk la moo xam naan la mbaa yeneen yu dog koor rek daga moo ko tey lixtikaaf ba yàqu na aw bi dawaaxil wata yi wala ci way woote laal ga daa jublu sababi jote ga maanaam yi góor ak jigéen di faral a def bala ñoo jote dëgg-dëgg ni ki fóonante wala jonjonte ci yaram bu dee fii ci lixtikaaf moom daa wuuteeg koor ndax bu dee koor doonte ramadaan la fa jant ba soyee digganteem ak fajar di fenk mën na faa jote ak kamuy seen ak lu mu bëgg ci xeeti banex yoyu ci lalante ci yaram ak lu ko nuru itikaaf nag moom du sañ a def dara ci yooyu li feek àggaleegu li itikaaf ji rek mu fóonanteeg ka muy séyal wala mu jonjonteeg moom ci yaram mbaa def ak moom benn xeetu bànneex dañoo jëlale jote ga ci sawukaay waaye mboolem yooyu jiitu jote yépp rek lu mu ci def te bànneex rek a tax mu def ko lixtikaaf ba yàqu na nde sax bu fóonante woon ak soxnaam ci kaw dañuy tàggoo rek soxna say tukki waaye du bànneexu moo tax lixtikaaf ba du yàqu kon mënees naa takk ne kuy lixtikaaf dañoo jëlale bëccëg bi mu ware waaye guddi ga sax bu ca jotee lixtikaaf ba yàqu dañoo jëlale jote ga waaye yooyu jiitu jote sax muy fóonanteeg laalante ci yaram sax bu ko defee ngir bànneex lixtikaaf ba yàqu aw ka sukkuri wala lu mel ni màndi ba tey boo lixtikaaf def lu araam niki naan sàngara mbaa njaaloo doon ci guddi ga la it tutee lixtikaaf ba yàqu baabul xajji lii mooy buntub aj wala xumrati ak xumra aj mooy juróomeelu ponk lislaam mook xumra ñoom lay boole wax ci bunt bi alxajju aj fardum farata la marratan benn yoon lil musti'i ñeel aji man fi umrihi ci dundam ga kazaniki ni tusannu def na sunnaal alxumratu umra aj màkka farata la benn yoon rekk ci ko ci koo xam ne kàllafe na te mën na ko te amul ngànt bu dee léegi si nga xam ne amul xaajale gor ak jaam takk-takk bi mooy rekk kon ku kàllafe te man ko te amul ngànt rek mu daldi koy war moo xam góor la moo xam jigéen la saawu ko ci aj rek benn yoon bañu ne farataam wàcc na ko du tee mën nay ajiwaat ajug naafi la sàkku rek tuyaaba sopp nañu sax juróomi at yu ne mu dellu ajiwaat ndax la hadis ba nekk li ne inna xabdan saxaxtu lahu jisma wa wasaatu alayhi fi lmaisha yamdi alayhi xamsatu acwaamin laa yafidu ilaya la maxruum ku ma may wéru yaram may ko ak man gu wér a wér bu amee juróomi at war naa ñëw siyaare ma ci sama néew bu tedd bi muy kaaba gi bu ko deful rek moo xañ boppam aj màkk nag lu metti la waaye lu bari tuyaaba la day taxa set wecc itam ci ay bàkkaar ndax addis ba nee na man xajja haadal bayta falam yarfut walam yafsuq xaraja min dunubihi ka yawmi waladathu ummu ku aj kaaba gii te deful lu aay ci wax mbaa ci jëf day set wecc ci bàkkaar bu mel ni ba ko yaayam juree umra itam bu defee genn umra rek sunna sa wàcc na ko teew nag mën na at mu ne su ko mënee mu dellu umra jiwaat ndax addis ba nee na bu umra dellu umra waat lépp lu mu defoon ci bàkkaar ci diggante boobu yàlla jéggal na ko ko ba mu set ci addis boobu la waxaale woon ne aj gu aw yoon lu ca warta am amu ca te lu ca war am am na ca àjjan rek mooy payam mooy alxumratu إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حديث بوبو البخاري moko netali li gën sax ci umra mooy mu def ko ci weeru koor ndax li hadis ba wax ne umra ci weeru koor day mel ne aj màkk goo xam ne kooko da ko ànd ak man nu bokk ko def kon umra ci biir weeru koor rëy na lool ndax doom rekk ci taxaw taxawaay aj waaye day yem ak aj gu julli ba def ànd ko yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu bokk ko def shurutuhu ay sartam islaamuhu moo di ak duggam ci lislaam xurrijatuhu akuk goreem wa xaqluhu ak xelam buluuxuhu akuk kàllafeem istitaaxatuhu akuk manam dafa jaxase sart yi am na sart yoo xam ne sarti war la am na sart yoo xam ne sarti wir la lislaam ji mu njëkk a wax bu dee ci waa maali dañu wax ne ab yéefar lépp lu yàlla santaane sant nañ ko ko waaye nag dugg ci lislaam daa waree jiitu li feeg dugg ci lislaam bu defee dara ci yooyu lam def du baax kon dugg ci lislaam ab sart la ci yurub aj ga lim ci teg nag muy muy gor jamono ñu amee teqale gor ak jaam gor rek la aj màkka war waaye jaam moom waru ko du tee nag bu ko defee mu wér maanaam jamono yi nekkee ci njaam nga bu ajee aj ga wér na waaye nag defagul farataam bis bu goree war a ajuwaat aj ga nga xam ne mooy ajug farataam li mu ci teg muy mu ànd ak sagoom bañ a dof dof moom aj màkk waru ko te bu ko defoo nit du wér kon mën nañ ne ànd ak sagoom bañ a dof sart la buy tax aj war ko sart la buy tax it bu defee aj ga mu wér waaye nag dañuy wax ne moom ci boppam bu ajee du wér waaye nag waaye nag dañuy wax ne bu ko ci kilifaam dugalee dana wér kon kilifa ga day yéene rekk dugal ko ca aj ga ba tey sax gone lum gone gone doonte agul ci xàmmee mbaa muy nàmp sax kilifaam mën naa yéene dugal ko ci aj daañu wax nag ci téere yi ci topp téere yi gën a yaatu kilifa gi bu yéenee ba dugal dof ba ci aj ga wala mu yéenee dugal xale bay nàmp mbaa ba xàmmewut ci aj ga naka lay def nag ak moom ci aj ga yéene moom mën na si caawutu kenn waaye kilifa ga day yéene dugal dof boobee mbaa gone googee ca aj ga kàllafe gim ci teg nag gone bu aje itam mu baax waaye nag du tax farataam wàcc ko ku toll ci ngone kàllafeegut dem aji aj ga mën naa wér waaye nag du kàllafee rekk war a ajuwaat ajug farataam man gi nag mooy tax aj gi war ko du tee nag bu fekkee dañ ne mënu ko waaye toggoon ay coono ba def koy du tee aj ga wér kon man gi moom ab sart la buy tax aj gi war ko rek waaye buñ ne mënu ko it waaye jéem na ba def rek jaanam daldi wàcc man googu nag moom lay firi ne waxya moom alwusuulu mooy àgg ga ma rujuhi ànd kuk delluseem ila makaani tamxiishin ba ci béréb bu mën a dunde maxal am ni ànd wóolu xalaa nafsin ci bakkan wa maalin ak alal ma adaa il fardi ànd ak joox farata ja walaw bi machine ak donte ci ak dox ak tànkam la aw suaalin wala ak laaj mu yalwaan yëfu bi goog dana ko àggale mu ne man gi mooy mu mën a dem ba àgg màkka te it dañ cey boole ak mën a dellu séem ba fa mu dëkk fa mbàyyi ko woon ndegam bu ajee ba noppi du mën a toog màkka amut it ci yoon yi foo xam ne mën naa wàññiku ba àgg fa toog fay dund di wéy ndegam moom daal bu ajee ba noppi faawu day ñib siwaat rek ba ci fa mbàyyi ko woon mbaa du sotti ndax amul fenn fu mën a nekk fu may foofa kon dañuy seet dem nga ak dellu si ba yaar yépp su mënee dem bi dong te mënul dellu si ba it du tax aj gi war ko su fekkoon ne nag su demee rek ba àgg am na fu mën a toog foofa ca màkk dund fa di wéy kon dem bi dong la ñuy seet su fekkee itam bu doon wàññiku dana mën a am fu mën a far yam bañ agsi fa mu bàyyi ko woon di fa dund di wéy kon ñu seet dem ko bu màkk ak wàññi ko ba foofu ba xam mën na koo mu déet su ko mënee rek ñu jàpp ne aji gi war na ko kon bu fekkee dañuy paas bu amul paas aj du ko war su amee paas it am wér mën a dem waaye yoon wi daa wóorut ba kanam mën na caa des mba àllam jépp manees na ko nangu ci yoon yi ba mel ni mës amati alal xam ne kon am na wóolodiku ci bakkanam ba alalam ba tey aj ga du ko war su amoon paasit ak fere yi nga xam ne moo war ci aj gi waaye amul lum bàyyee njabootam te njabootam bu leen bàyyee daañu loru dañu jàpp ne mënu ko faaw day aajo wu man fere aj gi ak dundub njabootam ndegam njabootam bu leen bàyyee gannaaw du am ku leen taxawoo su fekkee ne it amut paas waaye foofu mënees na ko dox ak tànk te moom mën naa dox ak tànkam amut lu muy wóoloo di ko ci bakkanam ba alalam it kon bu daal di war a dox ak tànkam duñ wax kenn ne ko nag ndegam yow boo laajee nit ñi moo xam yalwaan la moo xam woyaan la ñu jox la danga war a laaj kon ñu jox la nga dem aji duñ ko wax kenn lu may koo xam ne moom seet nañ ne yelwaan googu mbaa wayaan googu ruusu ko daanaka moom la def métier kooku nag bu ca boolee xam ne bu laajee ñu jox ko ba mu am lu mën a aje ji day war ci moom moom mu laaj bañ jox ko dem aji ji kooku aj gi mën na ko ndax mën naa laaj ñu jox ko waaye koo xam ne ruusoon naa laaj naka jekk daawut laaj mbaa boog ruusu ko waaye xam ne ni bu laajee kenn du ko jox kon mënu ko duñ ko boole ci ñi aj war léegi mu ne nag ma ada il fardi ànd ak joox farata ja da caa jublu julli juróom ci yoonu maal dañuy jàpp ne julli moo gën a màgg aj màkka kon nag su ko wóoree ne bu demee di aji faaw dina am julli farata goo xam ne dana jot te du ko mën a julli ba waxtu wa jàll xam loolu moom lu ko wóor la nattabliwu ko kon day toog bañ a aji te sàmmonteeg julli ci waxtu ya nañ ko ko sante daa mel nag bokkiwut ak mu jàppoon ne fu mu toll dana mën a joox farata nañ ko ko sante bu dem ba ci biir nag ak julli farata raw ko ci kaw rekk ak tombe loolu moom dutee aje ga war ko waaye su ko wóoree ne moom am na sabab soo xam ne na tax bu ci àggee du mën a julli ba julli ga da koy raw kon na toog bañ a aji ba gis ne sabab soo see léegi dañ na ba gisatul daal lu koy tee joox julli juróom ci diirub aj gi ca nañ ko farataale ci moom julli gu ne ci waxtoom bu dee jigéen ba tey dañ cay sartaale faaw na jëkkëram ànd ak moom ca aj ga wala koo xam ne ab araamanteem la mooy ñoom ñaar mënuñu sëy benn yoon ci lislaam bu dee ci yoonu Maalik moom daañ ca def ak jàppandal bu fekkee ne amul jëkkëram juy ànd ak moom amul ab araamanteem buy ànd ak moom waaye moom ci boppam jigéen ju ñu wóolu la te it ña muy àndal ñu ñu wóolu lañu kon mën naa aje ci kaw nag aj ko di ajug farata di bu dul ajug coobarew rek moom dañuy wax ne faw day ànd jëkkëram mbaab araamanteem waaye ami àndandoo yu doy rek ak moom ci boppam mu nekk ku doy rek du ca doy arkaanuhu ponkam ya arbaxatun ñeent lañu fal awwalu aj jëkk ja ihraamuhu moo di ak armalam aj màkka am na ñeenti ponk mbaa nga ne am na ñeenti farata da cee boole am ay warigar yoo xam ne nag soo leen bàyyee aj ba dana baax waaye dañ lay alamaan daañ